tey nag ñu ànd benn asar boo xam ne wahabiye yi dinañ koy faral di askan kenn ci kilifa yu mag yi bokkoon ci kilifa yi asalafu saalex muy kilifa ahlu muy kilifa ci ahlu sunna di kilifa gu mag a mag ci ahlu sunna muy isxaq ibnu rahaway defe mi ngi génn àddina ko tey deux cent trente-huit ca gàddaay ñu ne isxaq daa wax ne arrahmanu ala al arshi istawa xam yi dëppoo nañ ci ne yàlla ma nga ca kaw aras ci la def istiwa teyit mi ngi xam lépp lu ne ci suuf sa gën a muy juróom-ñaareelu suuf lépp lu fa xew ma ngi koy xam nga xam ne kon day daal di dëppoog liñ bëgg liñ doon askan Malik ne daa wax ne allahu fi samaa'i wa ilmuhu fi kulli makaan ñoom loolu lañ ci bëgg a tabax asar la boo xam ne nag xam naa mën naa ci dee masaadir yu bari sax nag yu ko toxal ndax seen téere yi wax ci buntu aqiida bi moom defe naa ne yi ko ci toxal ñoo gën a bari yi ko ci toxalul bu fekkee am na bu ko toxalul bu dee bu mag waye man nga ci jël rek ijtimaaul juyuushil islamiyya bu ibn al qayyim ak bayanu talbisil jahmiyya bu ibn taymiyya ak sen téré bu siw bobu nga xamné sen kilifa yu bari wax na ci muy ad adduraat asar bi nak dafa amé jafe-jafe nak amna ñaar ñu ci nekk ñoo xam même albani reconnaître na ne moom xamu leen gisul seen tarjuma muy Muhammad ibnu Sabah an-Naysaburi albani boo demee ci muxtasarul uluw daa wax ne lam ajid lahu tarjumatan wa misluhu abu daawud al xafaar liñ xam nag ci ilmul xadis mooy asar moom bu fekkee ay majaahil lañ caani du wér dañoo ne ci sanad bi te fii moo fi xew yu mel nii nag bari na lool ci mbirum wahaabiye yi maanaam tegtaloo lu wérut di sosal asalafu saalih loo xam ne wérut boole di leen ci askan naa lii la ñu mu mel ni nag lu wuuteeg ak shari'atul islamiyya la ndax shari'a nanguwul nga jeg jékki jël ay wax naa diwa ko wax di ko tegtaloo naa asalfu saalih léegi seen pas-pas sa téere bu ne nga bind ko ci ci ñoo xam ne dañuy woote woo ne dañoo xam xadis dañoo am xam-xam fekk yu wérut ñu di ko tegtaloo di ko askan as salaf naa moo ko wax te amoo ci ay firnde loolu lu juuyoog shari'a la shari'a nangu booy askan. kilifa mbir nga vérifié ko ba mu leer na le moo ko wax waaye loo romb ci mbedd mi rek for loolu du doxiinu kilifa waaye du doxiinu itam koo xam ne euh, am nag ragal yàlla mooy muy sàmmoonteeg lan la sharia ak lan la waxut lu garaaw a garaaw la lii jékki-jékki fekk loo xam ne wérut nga di ko askan kilifa gu toll ni Ishaq ibnu Rahawi radiallahu taala anhu te kilifa ci ahlu sunna nga xam ne boo nee moo ko wax rek ñu bari mën nañoo jàpp ne loolu kon mën naa bàyyi xel ndax ci ndax ndax dayo bi mu yor waaye nag loolu lu ñu miin la ci yenn gaa yi maa nit nit nit koo xam ne lam nekk amuti firnde lu gën li gën a bari fekk kilifa gu mag mu di ko tudd naa maa ngi moomoon bokk pas-pas da ko day bokk ci politique ndax day da da moom daanaka fu mu mën a wéeru koo ko am solo ku mën a wéeru la mënta am ndax ñoom daanaka seen ngir mi ay ay kilifa da ciy newul faaw tudd kilifa gu mag ne maa moom ñoo bokk pas-pas wala nga tudd kilifa geneen gu mag gu newoon feneen nga daan ne génn na ci lim ne woon ñëw ci li yooyu xeeti campagne yi nga xam ne dañ ko yokkamtikoo la ngir bëgg xëy na wane ne li nekk dëgg la waaye nag loolu dëgg nag moom euh, coow mën na caa bari waaye fexe ba mu nekk dëgg du yomb moo tax daal euh, asalafu moom bala ñu leen a bàyyi danañ danañ xamal ñi ñëpp ni la nekkoon ak li ngeen nekk moom bokkul bu ko defee nag la ngeen nekk mën ngeen caa nekk